Euh, docteur bay Mass ñu ñëwaat nag euh, ci beneen wàll bi yoon damay ñëw rek euh, ubbeeg yow ci li nga xamante rek moo di doomu aadama bi ci wàllum ñaan yàlla ndax ni ma koy waxee tam wax gi bari na ku jóg sol sa grand boobu ñu bari ni koy jàppee ñoom noonu lañ ko jàppee léegi ci biir réseaux sociaux yi na ndax jamono mooy dox li ni mel ñëw ci wàllu ñaan yàlla dëgg-dëgg ñi dem ba nga xamante dañoo dem ba benn jamono ku ñu gis rek loo gis nag am na exception maanaam am na wuute daanaka ci wàllum ubbeeku ci wàllum nag kaaraange loolu bëgg naa tey ñu waxtaan ci muy protection docteur Baye Mass moo war a ñaan dëgg-dëgg amaana am na ñoo xamante ne tey xëy na dañuy mokkal yenn rek saar yi rek bëgg ne toog ne ne ay sëriñ lañ. waaw ñànkat dëgg na nekk borom xam nekk nit ku jub nekk nit ku sell nit ragal yàlla lii mooy ñaankat nekk nit ku ragal yàlla loolu point boobu boo ko amee pare mën nga nekk nit ku ragal yàlla waaye nag dama tiit ci sama réew ci li may gis ci ay ndaw yoo xam ne entre vingt cinq ans ba quarante cinq ans xaalis jaru ko bës jaru ko alal jaru ko du dara image dafa fort nañu respecté ndaw ñi nañu respecté seen image bàyyi xel ne dañuy jur ay doom seen doom yi dañuy màgg dañu yor njaboot yor seen famille te moomatuñ seen bopp parce que boo bokkoo ci famille boo waxee lu doy waar ñi xëy waar la say mbokk am gàcce say soppe am gàcce say doom ëllëg ñu wan leen ko ñu am gàcce bu ko jara bu leen ko dara jaral oto du dara xaalis du dara sa dund àdduna li ci yàlla tudd danga koy am mën nga tedd tedd dëgg mooy duggal ci loo man waxal loo xam boo tëddee nelaw mais lu jamono bu xew rek wala ku siw moo xam musicien la moo xam footballeur moo xam bëri làmm moo xam politicien nga génn wax ci ne ndax na moytandiku ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy sànni benn affaire mm-hmm. bu ma seet see mm-hmm. wala moom de lii moo ko war a dal non nañ bàyyi xel suñ bopp ci côté boobu noonu parce que yow mi wax loolu mm-hmm. moo xam musicien bi nga ko wax wala mbër làmb wala footballeur bi wala kilifa bi wallahi boo amee ay mbokkam du la seet si parce que ki kooku noonu am jafe-jafe wala nekk ci yoon buy seeti day seeti ku am sutura koo xam ne su fa génne di wax diw moo ñëwoon dara jaru ko nañ ko moytandiku yàlla suturaal nañi ñu ngi jëflante jaamu yàlla yi wàllu ubbeeku ak wàllu kaaraange suñ borom dañuy defal sutura du ñuy wax diw seet si woon nañi nit du ñëw suñ kër ñu film ko mukk jamais de la vie dara jarul ñu ko def nañ ci dix ans ci métier bi fu ñu neex ñu taxaw ci kenn ñu waar duñ duggul ci luñ manut luñ taxaw palaasu yàlla waaye nag yàlla dogal na gëstu nañ ba am secret yu wér ci wàllu asaraal di ko jëfandikoo te ñu ngi ci jëflante ñu ci gis seen bopp képp ku nekk ci jafe-jafe boo ñu seetsee suñ ci waxtaanee xool yoon ñu war a jaar yàlla mën na ci def sutura képp koo xamante ni da bëgg ut kaaraange boo ñu seetsee bu ñu waxtaanee ba juboo yàlla mën na laa defal sutura ba la nga soxla si ñun nga am ko ñu ngi ci sant yàlla ci liñ nekk nag ndamawuñ ci mais dañ ciy gërëm yàlla parce que yàlla suturaal nañ ñi amul lenn lu ñu dabee ci àdduna mm-hmm. parce que ndaw lañ fu ñu bëgg dem si àdduna ñu ngi fay dem dara lu xóot suñu bët parce que yàlla suturaal nañ ñi fu ñu bëgg dem bu ñu neexoon tey tey ñu fi fanaan loolu yàlla suturaal nañ si mais ñu ngi koy sant yàlla mais ndamoo ñu ko te duñu wan ne lii lañ man maa ngi dénk sama bopp ndaw ñi dénki ndaw ñi ñu bàyyi xel ci loolu mbokk yi muy kaddu goo xam ni kaddu gu neex a dégg waaye tamit kaddu xam-xam ndax li ma wax itam euh, daanaka euh, loolu rek mooy mbir mi lépp rek na dëppoo ci euh, ragal yàlla waaye teg lépp nag sellal ko lu am solo la maanaam dégg ngeen ko ni mu ko waxee nit ki nga xamante ni doomu aadama ñaan rek doomu aadama bi moom amul lu dul ñaan comme ni mu ko waxee te ñu bëri xam ko ci wàllu woobu ñu bëri dama ne la daanaka dafa dem ba paj bi moo gën a fës ci moom waaye day yëng ci wàllum lasara tabarkàlla ci wàllum ubbeeku ak protection di kaaraange docteur Baye Mass mu mel ne dañuy ñëw ci beneen point muy bi nga xamante ne ay jamono daa tudd euh, boobu ba ngay nekk ki bande FM dafa mel ni moo gënoon yëngatu woon na moo parce boo ko waxee euh, maanaam au miracle bi nga xam ne day faj sept maladies boobu ba léegi mu nekk ci jamono di dox euh, lan mooy secret bi parce que xam nga léeg nga di gis benn benn benn mbir moo xam ni heure bu ñu yeewoo bu ñu toogee ay dix ans vingt ans kenn publicité wu ko sax moo ngi doxal boppam mooy publicité boppam lan mooy secret bi. waaw alhamdulilah parce que au miracle yi dafa amoon vingt neuf maladies mm-hmm. ma parce que 29 maladies lañ bind ñun moom la ñu faj may day faj 313 malades bii nii moom mooy 27 maladies yi moom tam lay faj nga ñëw ci bii moom tam dafay faj 7 maladies parce que lii ñu ko composé laaj ak jinjar parce que ñun yàlla dogal na suñu garab yëpp naturel la bii laaj ak jinjar la am bii moringa bi ak jinjar la am na moringa boo xam ne moom naturel kese la am na loo xam ne ndiir kese lañu ci liggéey am na loo xam ne géejaan kese lañ ko liggéey parce que yàlla dimbale na ñun ñu xam palante gëstu ci xam ko bu baax mm-hmm, mm-hmm. ba dama waxoon fii ne hépatite B lu ma ne wax ci ba ma ko daree faj ba léegi mosuma mm-hmm. jox nit garab te bi wàccut ba jeex wala wàccul ba xaaj te amul résultat mais mais euh, hépatite boobu nga wax sax mu nekk lu doy waar maa ngi fa doon bëgg a dem mais mais loolu lan ban moo ko ciy traité parce que tam ci ci cette maladie euh, miracle cette maladie wala 29 yi parce que def daf maladie boo xam ne dafay làqu dafay nëbbu nit ki bu fekkee nekkoo di tux di naan hmm. mën a nekk ci moom vingt ans du ko xam mais heure bi muy yeew fekk dobale ba noo ba gaañ na la hmm. parce que su xasee màgg ba laal foie bi wala mu yegg yenn niveau yi pour mu faju du yomb mais damay wax ne képp koo xamante ne amoo ko war ngaa dem def analyse bu fekkee amoo ko def vaccin bi su dee am nga ko nga dem traité feebar bu du wérut amul man gëwuma ku la ne feer wér gannaaw lu ma xamul parce que lu ma xamul bu mu waal may feebar bu du wérut amul bépp feebar bu am bu mooy ak dee dafay wér mm-hmm. nit ki nag bu feebaru feebaru dee lépp loo ko mën a indil si àdduna dafay dee mm-hmm. mais feebar bu dul wér nag moom amul hépatite benn ak moom yàlla suturaal nañu ñu nit koo xamante ni bañ ko daree faj ba léegi nit mosuñ ci jox nit garab te amul résultat muy feebar boo xamante ni na ci ndaw ñëpp bàyyi xel mm-hmm. parce que mu ngi faagaagal nit ñi te xamuñu ko parce que ni mën a wàllee dafa bëri virus la boo xam ne nu ne mën na ko ñëwee. Mhm. mën na dagg lamset bi dagg ma dagg la fekk am nga ko muy watu tëndus bi. Mhm. muy puso. Mhm. muy kaas virus kaas bi nga naan wala et cetera parce tubaab bi dañ ne. ndóol gi Afrique ndóol moo tax quatre-vingt am nañ ko parce bokkaate bi. parce lépp loo xam ne virus lay jógee te dañ ko ñun dañu bëri lu ñu bokkaate rek. nit ki mën na ko am parce nit ki am ko pour mu xam kañ la ko am rek lu dangay dem di maye deret wala ngay def analyse ñu ne la am nga ko. Mhm. waaye nag bu nit ki bu mu ko am ba découragé wu la du wér. d'accord loolu gëwuma ko. loolu moom ñu ngi koy ñaax ñëpp képp ku ci am boo ñuy seet ña faj la ba nga wér ci kàttan si borom. tabarkalla mbokk yi docteur Baye Mass mbokk yi ni ma la ko waxee rek euh, moom lépp loo xamante ni xelam dalu ci wala sax amaana lii li ñu naan impossible moom danaan la carrément li moom man mënuma ko loolu euh, yaakaar naa ñi ko kan euh, ñi ko ràññee ci ay kàddoom da koy xam ci ci dëggu gi itam waaye itam ci xam-xam gi tabarkàlla waaye itam di ndaw waaye tamit loolu ba léegi mu di ko fësal yàgg na di gëstu ni ma leen ko waxee ci àll wi waaye itam li ko jaral rek muy xam-xam ngir rek résultat kon docteur Baye Mass Cissé mu mel ni rek dañuy tëj jotaay bi xam naa ni itam waxtu bi moom nañ ko waxee daanaka jot na waaye tamit jot bi bariwul euh, daanaka rek euh, dañuy ñëw ci li nga xam ne moo di frotté bi tamit bi ñu dégg frotté bi dañ lay bàyyil tey ñun suñu bopp bu ñu neexoon mën nañ ko décortiquer ñun suñu bopp ndax yàgg na noo xamante euh, yàgg gis itam ni ñu ciy def li ci joxe résultat waaye frotté bi dañ lay bàyyil tey yow sa bopp nga décortiquer ko yi nga xam ne amaana ñoo xam ne ñam nañ ko xam nañ ko muy frotté bu doy waar bi frotté bi moom docteur Baye Mass bii moom mënoo ci liggéey lu doy ci li muy dox mbuy waaw alhamdulilah sëñ Mountakha bii moom yaakaar naa yow war nga koo xam Euh, biñ ko liggéey léegi commencé liggéey léegi mu mat huit ans mm-hmm. wala sept yàlla xam na ne lépp luñ ci liggéey du taxaw mm-hmm. njëriñ li ci nekk kenn mu loo xam ne toll ñii nga xam ne dañu am ndoxu ci seen yaram dem ba lakk wala bu taas mm-hmm. daf koy dindi ñi am douleur bu yàgg daf koy dindi ñi nga xam ne dañoo am méttitu tànk wala méttitu yaram boo xam ne dafay ruux di métti wala douleur boo xam ne xamoo lan la forate bi daf koy dindi muy lu am solo bii nii forade bii mhm. njëriñ li ci nekk tey mënuñ la ko buñ la ko doon wax sax mënul mhm. jeex mais nag yàlla dogal na ñu ko xam ba ne képp ku ñu xam rek xam nga ñeneen forade bii mhm. fu ne lay dem ci àdduna bi wax dëgg yàlla bii nii mooy savon bi nga xam ne moom yaakaar naa tim xam nga ko savon bi dafay dox ci wàllu po euh, lépp luy der boo xamante ni dafa am problème wala nit koo xam ne sa yaram dafa lakk dafa am taas dafa am xam dafa am picc savon bi ci loolu lay dox naturel la saabu la boo xam ne ñu moom lañ ko liggéey nii muy saabu bu am solo. amul benn ëtrukiline amul dara dara toxique bu si nekk. lépp naturel la. waaw alhamdulilah lii nii mooy lem bi ñu doon wax léegi na la. Mhm. am na si boo xam ne du lem. Mhm. pour wàllu góor la bii nag moom dañ ci liggéey lem mooy ñi am jabar duñ ko jël. Mhm. mais képp ku am problème boobu noonu. dañ la koy boolee ak lii ñu defal la traitement bi. incha allahu rabi lépp lu waroon loolu day dañ ba set wecc yàlla dimbale ne xam naa affaire bi xat waaye li ñu war a waxtaan ëpp na lii waaye soo gisee mm-hmm. émission bi ñu def ko mm-hmm. mooy dañu war a des fois ñi génn nit ñi xam ne ñi ngi fi mm-hmm. parce que nit ñi ñi ngi jëriñu si ñun parce que suñu yoree lu wér loo xam ne nit ñaa ngi ci jëriñu am na ñoo xam ne tey nit ñi ngi wax te lañ yor xamuñ ci dara li ñuy wax dara lañ maîtriser wul te doomu yar yaa ngi fay dem di feebar di fi ñu da nga gis ku feebar koo xamante ni dafay jaaxle du xam fu mu jëm parce que waxukaay yi bëri nañ te kenn ku ne maîtrise yaa ngi wax damaa waxoon bu njëkk ma ne état dafa waroon tabax centre boo xamante ni pour wàllu traditionnel la képp ku bëgg a def médecine traditionnelle ñi dem jàngal la soo jàngee ba qualifié ñu jox la diplôme am nga droit samp wax ci li nga maîtriser parce que métier dañ koy organiser métier dañ koy moderniser métier parce que boo demee ci àll bi traditionnel dafa dox ñu jox leen cër. ñu respecté leen mooy dañ ko organiser ba nit ki lépp lu mu xamul maîtriser ko du ci wax parce que loolu dafa war am su amee rek métier mi ñi ko bëgg danañ ci volontaire dem jàngi ko continuer liggéey ñi nga xam ne tàppale leen ci dugal wootu on xaalis ñi ba ko seeti leneen ñi ngi wax ne waaxilu dawana alhamdulillahi rabbil alamin docteur Baye Mass tàggoo nga de waaye mu mel ni ay simili yu néew rek Sénégal war a jàkkaarloog Angleterre ban ñaan nga leen di defal parce que tam ndeysaan euh, tension tension la fu mu nekk ndeysaan xel yëpp euh, ndam rek la ñu bëgg fi mu nekk ndax xol yëpp ngi euh, fële ca diwaanu Qatar. waaw alhamdulilah ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla may ñu ndam yal na yàlla ànd ak ñun Sénégal xol yi nañ tàppe nekk benn suñ ko defee rek bañ a xeexante rek suñ borom def ci ndam te yal yàlla defal ñu ci barke alquran ñu ngi koy ñaanal équipe bi di ñaan ñi dem ci jàmm ñëw ci jàmm di ñaan ñi dem tam yàlla sàmmale aar la ñu ñaan réew mi jafe yi metti na ndaw ñi nañ delloo seen xel te doyloo yàlla mag ñi nañ yërëm ndaw ñi ndaw ñi nañ resté seen kàddu yi xam ni ñuy waxee mag ñi ñu ngi ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm mbokk yi dal weeg taalibe bi la boo déggee docteur Baye Mass Cissé itam uh, xam ni itam ndaw uh, bu xam-xam yittil la moo xam uh, biir réew biti réew itam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax tabarkàlla di nag ku yàgg di gëstu ci wàllum gàncax waaye rawatina nag ki lasraar itam ñu di ko sant bu baax tabarkàlla di leen fàttali rek adresse bi diwaanu Parcelles Assainies la en face pharmacie la Parcelloise ci diwaan unité 14 maanaam fii la diwaan bi ne muy cabinet bu am solo bi nga xam ni dina ci jëflanteeg jaamu yàlla yi tabarkàlla téléphone baa ngi noonu euh, euh, di ko samtaat di ñaan allahu buur bi subhanahu doole guddal fanam doole ko defal tawfiix ak tey si rek nag defal ko saxat doora yin ki barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yàgg lool di jëflanteeg askan wi waa sa borom bi di ko ci euh, defal ndam bu baax a baax ci wàllu éclairage bi caméra Cheikh Omar ñu ngi koy sant bu baax a baax présentation bi seen mbokk taalibe la woon Mouhamadou Lamine Muntaka yàlla mi borom jàmm te